ginnaaw taw yu rëy yi nga xam ne am na fii démb ci ndakaaru ak ci département de Rufisque rawatina ci arrondissement Sangalkam ñu gis ne taw yooyu ci ay euh, euh, dëkk yoo xam ne mel na ni Kounoune mel na ni cité Oasis am na ay jafe-jafe yu fa indi woon. Euh, may wax rek ne ay bés ci ginnaaw sax ñëwoon naa fa man altine bi passé def fa benn visite gisoon ne effectivement ndox mi fi nga xam ne mooy yoonam. Euh, am na ay ay lotissement yu ñu fa def te euh, waxoon naa déjà euh, gouverneur mu def benn rapport pour que lotissement yooyu ñu seet nan la ñuy bàyyee yoonu ndox mu aw fa te taw yi bi mu amee démb bari torop ñi nga ko commencé fële ci diggante commune Sangalkam ak Niaga mu muy espèce su benn dalo benn pont bu tuuti boo xam ne fi fa ndox mi aw pont boobu bi mu jallee Euh, lii nekk cité Sicap yëpp cité Sicap Bellevue yëpp dafa amoon ndox waaye bi ñu demee fële ci benn lotissement euh, bu ñuy wax Millénium te Sénégindia def ko ci commune u bi ñu dindee euh, tali boobu ñu fay def gis nañ ne ndox mi ñëw na te ndox moomu mooy continuer bay ñëw fii ci lagrose Rose parce que ñu xam ne que ne yoon wi jógee ndox mi jógee boor yi Mbambilor te euh, benn ci ci ndox moomu di jógee ba ci plateau de de Thiès yi Ndias euh, Mbambilor ak yoon bi jóge boor yi nun ñoom ñëpp fii ci Lac Rose la ñëw mooy seen voie naturelle Lac Rose mooy fi nga xam ne fa la ñuy dem parce que looloo tax sax lac bi mën a am ci ay at waaye ndox mi ñu am démb dafa bari parce que maire ñàgg Tivaouane Pël mi ngi may wax ne depuis ñaar fukki at ak juróom gisuñu. Euh, doole ndox ak quantité ndox bu mel nii di ñëw fii ci ci lac bi di ñëw fii donc euh, euh, gis nañ ne donc benn canal lañ war a def pour rétablir ndox mi dana laaj nag xëy na yeneen lotissement yi ñu seet ko nan lañ ci liggéey ak ñi nga xam ne ñooy def lotissement yi pour yoonu ndox mi ñu bàyyi ko bi ñu ñëwee fii tamit gis nañ ne ñi nga xam ne ñooy liggéey ci xorom si ah, am na ay njaqare yu ñu am ci ndox mi ni mu bëree di dugg ci lag bi est-ce que loolu dana tax lag bi mën a amaat xorom si mu daan am te bi mu ñëwee jàll aussi ak doole am na seen yenn jàllu xorom yoo xam ne yi euh, duggaat na ci biir lag bi loolu wax nañu ko léegi danañ fi yónnee euh, service su état yi nga xam ne ñoom la seen euh, xam-xam màcc ci loolu ñu seet loolu ban impact la ciy am beneen bi tamit mooy gis nga ndox mi bi mu ñëwee yoon wi nga jóge moom moo mooy jóge fii di dem boor yi deeni biram yoon boobu dafa coupé te yoonu ay euh, dëkk yooyu am nañu fa yore ay oto am na ay camions yu fii aw tamit pour xolom si loolu liggéey bu jàmp la boo xam ne bii mooy genre liggéey yoo xam ne yi nag moom la plan Orsec di jël en charge loolu moom danañu def rapport bi pour plan seg ñëw ak ay entreprise seet na la ñuy rétablir rapidement yoon wi nga xam ne moom la oto yi di war a aw euh, normalement comme ni ngeen ko gisee bi fi bi fi bi fi dara amulee bi fi dara amulee fii yëpp nekkee àll ndox mi su daan ñëw ci biir lac bi la daan ñëw fi dara nekkulee léegi nag tiitaay yi nga xam ne moom la ñu am mooy nit ñi di jël leneen lu dul ndoxu taw di ko ci def mu yegg si ci xorom soo xam ne kii nit ñi dañ koy jëfandikoo pour lekk loolu sax ginnaaw ñuy wax euh, lu yées ñuy wax affaire u canal euh, ñoom amoon nañ ci tiitaange rawatina nag su fekkee ne ñu ngi laaj pour ñu def fi su ñu gisee ne nit ñi yenn saa yi dañuy dem ubbi kanaal yi di ci sotti lu la neex donc loolu lu lu étude bu rëy la ñu war a def waxtaan ak askan wi yëpp wan leen ne ndox moomu dafay ñëw fii ci biir Lac ñu ciy liggéey xorom am na noo xam ne lii kenn waru ko cee def loolu incha allah danañ ci bokk ak ñoom liggéey ko.